est toujours préjudiciable euh, à nu tudd porte préjudice euh, à la majorité bu ñu nekkee ci période électorale processus bi di dem normalement. moo tax ma ne bi ñëw ñëw. waaw mais ngeen jékki-jékki report élection bi engendré tension ngeen wàññi quelques points pour votre candidat. ngeen commencé euh, ñu dugg ci ay accusation corruption wak report élection ñu commencé campagne bi seen candidat bi nekk en campagne électorale responsable yu bëri taxaw parce que ñu ngi ruuma ndaat naan président dafay changer euh, candidat le lundi euh, lundi mardi mercredi wax bi ñu koy ruuma ndaat euh, mercredi président doog a convoqué le CEN euh, de la l'APR au palais de la République ça n'a dure trente minutes mu ne woy il a des choses à reprocher à Amadou mais euh, il vous libère dem leen ngeen campagne mmh. est-ce que à partir de ce moment-là waru woon douter euh, par rapport à vos chances de remporter cette yow yow honnêtement ak sa expérience bi nga am ak sa xam-xam bi nga am ci élection vous pensez que élection dañ koy perdre à une semaine wala dañ koy gagner à une semaine. élection mën nañ ko perdre en 48 heures. non attention. Euh, que le nu mu tudd l'ancien premier ministre euh, français. qui était part qui était favori. kan François Fillon. ah qui favori. mais ça c'est des scandales. nan la perte élection bi mais benn scandale moo moo moo éclaté ñëw. Euh, mais mais boo xam ne amul scandale. mais tergiversation yooyu am. dama lay wax ñii naan dañuy xaar président. moi je connais beaucoup de responsables dañu ne ñoom mënuñu woon dem tant que président yeewewu leen et pendant ce temps là l' opposition sur le terrain. c'est-à-dire l' opposition était sur le terrain nous man j'ai été le premier à dire d' abord da dem ca ca commencement ba. on a tardé à désigner notre candidat. loolu mooy problème bi. pour man loolooy dëgg on a tardé à désigner notre candidat contexte bi ñëpp xam nañ ko après notre candidat peut-être que a tardé aussi à être sur le terrain loolu mooy dëgg. du fait de du, du fait de quoi. du fait de il était premier ministre il y a déjà les fonctions administratives. il était là premier ministre la des fonctions administratives peut-être que ni mu waroon a duggee ci parti bi dëgg wax ak nit ñi xam responsable parce que il faut reconnaître que c'est un il n'a jamais cultivé une dimension nationale pour mun a xam ñëpp ñi nekkoon ci gouvernement bi nekk député peut-être dina leen xam mais les les les les les porteurs de voix qui sont dans les coins les plus reculés à la base les maires les les conseillers municipaux les membres fondateurs de l'APR peut-être am na ñu bëri xamul leen donc loolu mu ngi ci biir ak yeneen ak yeneen facteurs ñu ngi ci biir donc gis nga défaite buy ñëw day am concours de circonstances non ak yeneen ak yenn yenn facteurs d'après mais tu as déjà dit peut-être le report nous a coûté quelque chose ce que je crois que que le report les tentatives de report de l'élection a eu peut-être un impact sur l'opinion parce que tout le monde était plus ou moins voilà se disant mais pourquoi on reporterait les élections donc parce que les Sénégalais sont attachés à une élection booy xool suffrage yi booy def répartition suffrage mais ñun est-ce qu'on a un million de militants non on a maximum mais ceux qui font le vote <laughs> c'est Maïmouna Ndour c'est Massamba Ndiaye c'est Mademba qui son des des des des observateurs plus ou moins sympathisants de quelqu'un mais am na nooy defee lu contrarier seen opinion ñu changé peut-être que le report a eu un impact peut-être que li ngay wax nii le le le le délai court de la campagne a eu un impact pour un parti au pouvoir parce que li li entravé parti au pouvoir ak li entravé opposition du benn. donc tout ça je pense que c'est un concours de circonstances qui a fait on a perdu les élections il faut accepter la mort dans l'âme que nous avons perdu les élections toog fi naan kii defoon li kii mooy jaaroon fi kii mooy jaaroon fi <laughs> mais vraiment benn part dafa moo amoon habitude di wax nii laa defoon da yokk càggante rek mais du faj dara <laughs> ah, mais aujourd'hui il faut avancer euh,